mbokk internet yi comme niñ koy waxee saa su nekk gis ngeen fii tey nag li ci ginnaaw mbër la ñu wax parce que mbër mi dëgg la am na solo trop mais mbër boo leen ko gisee mbër kese du làmb mbër kese mënul boppam lu bari yàlla dafa dogal ne mbër boo gis rek am na ñu nekk ci ginnaawam loolu moo waral tey ñu indi leen li nga xamante mooy li ci ginnaaw mbër tey nag euh, dañ ñëw fii ci jàmm gën Sicap Mbao toog ak ay nit yoo xamante ni yaakaar naa ne euh, ñu bëri ràññee nañ leen ci ginnaaw euh, ki nga xamante ni moom mooy Mama Lamine nekk benn champion barki Demba Ndiaye rek la fi def benn nda indi fi ndam loo xamante ni macha allah keroog ñëpp kontaan nañ ci ndam lu gaaw a gaaw ki nga xamante ni moo nekk ci suma ndeyjoor kooku lay njëkk a laaj moom digganteem ak Mama Lamine ak moom lan la ci Mama Lamine ginnaaw bi mu nuyoo ba pare jëwriñ maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay laaj tey wax dëgg yàlla ku gis gis la ñu gis si combat yi li nga daj coono gi daj yëpp askan bi ak internet yi bëggoon nañ xam sa digganteeg maamu lamiñ lan la quoi sama digganteeg maamu lamiñ lu yàgg la daal dafa jiitu làmbam dafa jiitu doon mbërëm ndax suñu rakk la loolu dafa yàgg quoi bu ñuy ni du ñu ñun grand ay ñun Baye Vieux ñoom Ibrahima Socé ñoom Mala Daraame ñoom ñooñu lañ doon topp si làmb mais booy bi nekk booy boo xam ne booy bu yaru la nekk fii nekk si gerte gi juddoo jàmm gën yaroo foora màggee gerte gi kon kooku dara waru kaa war a mën a jaaxal. Euh, ok léegi dafa am lu ñu gën a soxla ci euh, internet yi lu ñu soxla parce que ñoom dañ lay gis chaque fois fois ci ginnaawam euh, la yaa ay ay magam la woon sa rakk la gis ngeen li mu commencé di def mais dañu gis chaque fois ñu gis la ci côté mystique bi dañ la gis si mystique bi li nga ciy daj coono gi nga ciy daj quoi ñu bëggoon xam sa taxawaay ci côté boobu lan la. waaw taxawaay ci côté boobu moom du dara xëy na mbër bi nga woo si wetam rek na ma taxawal parce que mais man pour man sax amul mystique. pour voilà yi euh, tey day leer quoi gis nga euh, làmb ji ah, euh, neexul ba neexul mais gars yaa ngi nii parce que tamit parfois ngeen gis mbër mi di simmeeku di di sangu indi ay bagaasam kenn xamul fan la ko jëlee mais dañuy wax ne euh, garab goo gis am na ay reen te dama jàpp ne reen yaa ngi nii quoi neexul ba neexul nañ waxante dëgg quoi parce que mbër mi euh, mënul di entraîner euh, mënul tamit di di di di nuñ koy waxee di di bëre di def lu nekk ba pare boole si di defal boppam mystique ah te làmb dañuy wax koo ne làmb wax mystique ah nañ waxante dëgg bëgguñu tey nga nëbbatu bëgguñu mu làqatu gars yi nag dañoo bari quoi peñe bari nañ fi trop mais moom tey moom lañ jàpp quoi pour mu wax ak moom quoi mystique bi lañ bëgg nga wax ci c'est am am na. non Mama Lamine amul musique Mama Lamine kenn la rek ci biir gaay yi muy seexu yàlla yi moom amaana tey jii nii yow mi sax euh, lu mu la ñaanal moom seexam mu am ñu bari dañoo jàpp ne am na la wala ñu wala ñaan mais yi ngay gis noonu yëpp ñu koy def nii si biir làmb yi turux carax yépp dugub ji nii pour neexal làmb ji rek ak daaral bis bi. mayeetul dara mais jàppoo leen ne sa waay parce que est ce que nekkul sa waay que combat bi baax jàpp ngeen ko dëgg dëgg ci mystique doo ko daan quoi non jokkal jàppuñu ko c' est que xam nga lu neex mooy ngay yóbbu nit nga xam ki ngay yóbbu mooy kan dañoo yor booy bi mu doon xale ñu xam mooy kan xam lu mu capable xam nga gaynde si biir àll doo ko won nu muy rayee ñu dañu gis yow yow euh, gars yi nañ la quoi sarax yu bëri yow yaa koy def quoi te sarax yooyu xanaa dooma da ngay def ay sarax pour semblant nii kese quoi mais déggoo ma kër gi du taaru làmb nañ waxante ne kër gi moo yaatu. kër gi moo yaat tey jii nii vie day toog fii nii si biir place bi vie nii ngay gis woo ma téléphone jox ma xaalis na ma génneel sarax lii lii man lool laa si am ah, mais munu ma laa wax nii la. Karbala it aussi noonu xam nga Sidi Oumy Mor xam nga Bada. yaa ma gën a xam ak Pape Diaz gaa yëpp gaa yëpp gaa yëpp ñu ngi si biir gaa yi xam nga gaa yi ràññee yow lañ gis gaa yi jël jëlkatu sarax yëpp yow lañ xàmmee buñ la séenee sax dañuy taxaw jàpp na ay sarax ngay joxe quoi kon yow euh, dara nga ci côté boobu quoi mais sarax yooyu noonu yëpp di ut muslaay rek di musal suñu mbër xam nga yàlla defal ko jàmm mu dem am ndam ndax xam nga dem lu toll ni esat di simmeeku ñëpp di la teg bët loolu dafa garaaw dafa rëy lol la mais du lenen mais dañu gis dañu gis combat bi passé ni quoi euh, nga nek benen nit quoi lam mo indi lolou quoi nek changer nek benen nit bu melne euh victoire bi sax yow la gëna ñor ko mbeur bi quoi non bes bi bes bi mo koy laaj rek chaque jour rek combat bu su nek rek ak li bes bi di laaj combat am ak jokel bes bi mo laaj mu mel non yor benen comportement la bes bi lamb ji moñ ko jaralon dal lamb ji moñ jaralon lu nek mais mais combat bii nii est defoo leen ci li ngeen def ci sarax warul tool ci ay 2 millions wala 1 million ci sarax. déggoo ma nañu yalwaan xam nga ñun amuñu xaalis dañuy yalwaan. non baal li ngay wax xam nga baal baal baal nëbbatu bi quoi am ngeen xaalis parce que combat bii ku xool xam ne macha allah quoi préparé nañ ko bu baax a baax xaalis am na ci quoi. saga nekk rek. mais mbër bee la gën a sonn yow mii barki sëñ Fall. saga fi nek rek lepp li nga xam gaay lay neub rek c'est que man mën nga ma neub quoi mais gaay gaay ngay neub mais man mënoo ma neub quoi comprendre nga non wax ma rek wax ma quoi gaay mënu ma len neub ndax mbeur bi tay ji ni so amé rek lool lañ koy ñaanal yalla sax mais billahi ñun ku ko jappalé ñu jël sax ñun ku ko jappalé ñu jël ndax bisam lim ci daj ak ñun lim ci daj ñu nak yalla rek ñoko xam gaay dañuy yak sen temps yépp yak sen yitte yépp lu melni fi tej parage am xam nga mel ni karbalatik at léewam ñu àndandoo dugg ci biir nit ñi yalwaan nu moo ko mën a waxee xam nga pour mën a taaral suñu bis xam nga sauver suñu drapeau gox muy Diamaguène Sicap Mbao mbër bi bu bu bu yàlla defee ñu ne euh, maam a jël na avance euh, ba ni muy bëree euh, naka nga koy dundee loolu quoi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci ginnaaw mbër bi loolu nu ñu koy dundee mooy lan mbër bi moom kenn du ko wax demal entraîné ndax xam nañ ne moom mi ngi ci quoi xam nga di jappalé nit ko xamni ni ci si koy jappalé mo la ko gëna bëgg lool dafa neex te mbeur bi ci luñ and ak mom ni daf ñu ko bëgg chaque jour day pare suñu yéwon suba nañ am ngeen combat gëna suba lay doon pare nañ ndax xam nga lu gëna neex ka ngay jital koku su paré rek ñi ginaaw kon dara amatu leen lu ñuy xaar dal te ñun mbeur buñu jital dafa pare kon ñun amatu leen lu ñuy xaar ñun suñu xëyoon nañu bis bi suba lay it nañuy def nañ daan def rek mooy bëri na ay dix combat xam nga yaa ma gën a xam boobu ba léegi gars yi ñooy làmb seen poos amuñu benn autorité buñ dimbali ah loolu combat bi nii lañ gis musal Ndofène Diouf xam nga di ko nuyu waale di ko sant di ko gërëm mu jox ñu cent xam nga kase mais amaatut leneen mais suñu grand yu baax yi la ñuy dugg ay ñoom laay pataa xam nga ay ñoom laay bay mbër xam nga ay ñoom paate ñoom ndelle mbay ñoom mbay faal bu foora xam nga si ñooñ lañu dugg ñooñ ñu lu ñu yor ñu duñ ñu xool lu ñu yor xam nga ñu boole ko si lu ñu naan mbooloo mooy doole rek xool yëpp àndandoo doon benn ñoom nekk si. ñun dañu gis euh, Mama Lamine euh, ginnaawam dafa mel ne dafa organisé wu parce que bu ñu xoolee am na ay porte parole am na ay trésorier am na leneen ak leneen parce que boo ñëwee ci combat ak Mama Lamine fi mu toll tey mbër toll na foofu sax te amul li nga xamante ne moom la Mama Lamine am tey euh, ci organisation yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci ginnaawam ah tey naka ngeen organisé woon noonu quoi ba tax mu demee noonu. Ah, mooy li ma wax rek ci organisation bi mooy ne ñun ñii ñëpp dañoo bokk benn lieu muy gerte gi ñun ñii ñëpp ah, loolu nag loolu dafa jiitul làmb ji te ñun dañoo organiser wu démb tey soog a ñëw loolu rek moo waral lii nii ah soo ñëwee nga gis ñii fii ñii fii ñii fee ñëpp nekk benn xam nga vie lépp bépp xaalis bu ñu mën a yor ci kaw suuf kii moo koy téye jëmm jiw nii vie njaay doon ko jub ku ñàkk ñaan mais mais tay est ce que du fek te parfois ngeen dem ci lamb yobu Mama Lamine ngeen dem ba ci bir combat bi est ce que parfois du len dal ngeen xol Mama Lamine xamna instant bi ni japp nañ ko ci galaj bobu euh est ce que lu parfois loolu du len dal. non c'est vrai mais li nga te non sax dafa mën neex moy li walay wax rek gis nga soy gungé nga gungé nga yobu gaynde mo neex quoi ba ci combat bi ni mo ci mujj de combat bi ni ñu mujjé beure ni ak jokkel boy ñi ñi ngi tag karawam ñi bëgg a yaramam pour deretam genn nan dañ ko japp ci galaj mais bumi juga mu jógee la saaga ne leen eh lijjanti leen seen bopp arbitre fi bàyyi ki mais dafa neex quoi soulagé waat ñëpp nga soo doon beneen mbër la mun xam nga lu gars di wax mun na ne ah non dañ maa jàpp bàyyi ñuy dagg yaramam wala xam nga mais bañ daggee karawam lak mu da see aalu sax ne bëgguma yi man ken jàpp waaw yooyu ay wax la rek da ngay pare parce que nekul yeen daf leen bëggoon defal parce que bañoon ngeen jaxaso mo tax mu wax lool mais yeen ñi xooloon lool yeen ñi nekk ci ginnaawam ah di def sarax bi def mystique bi yeen euh, automatiquement xam ngeen ne euh, mbeur bi ne dañ ko japp tay non xam nga nit tamit nit doom aadama mëno ko gëna xam bopam comme comme mom moy mbeur bi taxaw wara mëna sumeku nga ne ko dañ la japp victoire bi ñun ñuk ko bëgg nga ne ko dañ la japp ci gàllaaj mu alu ne kenn japp kooku ken amut lu mu koy balaamee champion la tarkinda la mais mais dañu gissone nga ben instant yeen ngeen am fo len tek sen beut ci côté euh, sa adversaire am ay bagage yo xam automatiquement bu bëggoon ngeen griller lool pour jël bagage yo la motax tax lool ah mais déggoo lu wax lamb la rek lamb lépp ngi ci ñun ay xalé lañ mais dañuy lamb ndax dañu dund mbapat demb tay soog ñew ñëw la ñu leen moom mbapat lañ ko daan yobbu mbeur bu ci nekk rek ku ci nekk suñ day ak yow rek ñun ñi nga xamne ni ñoy andando ay mama Lamine dinañ xam si yan tank lañ mëna dox ba jéem perturber la ba nga jaxoso pour mu ñëw dox sa kaw jall kase ah est-ce est-ce nekul combat bi kon réussir ngeen li nga xamanté mom ngeen bëggoon def ci mbeur bobu ba yalla may na leen euh, ngeen perturber ko ba tay bi mu ñëwee combat bi yomb trop si mom non mais si si ndax ñom ñoom bépp bruit bi nga xamné ne sax amna ci biir stade bi ñoom indi mais ñoom ci kaw loolu dañoo dañoo bëggoon a jaxase xam nga ñun ñu yàq làmb ji dem ñibbi mais Mama Lamine dafa doon nit koo xam ne nii doon ku yàq làmb ñun ñuy ànd ak moom it doxuñu si yooyu te xalaatuñu noonu ndax am na feneen fu ñu teg suñu bët bi lu dul ay jokkeel yi nii wala yenn mbër yu sew sewaan yi daal. comme ni ngeen koy gisee dégg ngeen li mu wax am na feneen fu ñu teg seen bët ku dul ay jokkeel ak ñeneen ak ñeneen euh, dafa li am solo dafa am solo mooy euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw mbër bi li ci ginnaaw mbër la ñu wax quoi gis ngeen tey euh, chaque fois gars yi mbër bi la ñuy gis ah, moom mooy touche ah moom mooy def open press moom la ñuy laaj moom mooy wax ak moroomam mais dafa am lu am solo mooy gars yi nekk ci ginnaawam gars nekk ci ginnaawam nag ñoo nekk nii ñi nga xamante ne nii bu jëlee combat du ñu nelaw du ñu lekk du ñu naan guddeeg bëccëg ñu ngi ci ci mbër bi ba nga xamante ne nii tey ba keroog yàlla di ko may ndam ñu gis euh, Mama Lamine combat bi mu am ci ndam lan moo nekk seen kanam. lu nekk suñ kanam mooy ne mooy li ma la wax sànq rek gaynde bi dafa sonn si nag yi ndaw yi nag yi mag yi soxla nag yi mag yi duufi nañ ñu boole kan yi nga xam gaynde si biir àll nga boole kaak ay nag yi ndaw doo ko wax nu ñuy paatee mais soo ko booleeg coggalu nag yi mag nag boobaa gaynde bi sax pour mu songu leen dina résister xaw a taxaw tuuti ndax benn gaynde rek coggalu nag du ñëw rek dal seen kaw faaw mu tiital leen xam nga ñu jéem a tas mu jéem a xool ñu muy daw ko ji. mais instant yi ci niñ koy waxee ci gétt gi am na ay mag yoo ay nag yoo xamante ne jàpp ngeen ne yi ay nag yu mag lañ est ce que mag yooyu bàyyi ngeen leen xel na tey bu boo demee woon benn nag bee de buñ ko amoon dee ñu gënal ban nag. nga bu baax gétt gi ba mu tasaaroo yàgg na instant yi nii booy bi dafa dox seen kaw garde xel yëpp jaxasoo na. tey instant yi kan ngeen bàyyi xel. déggoo ma instant yi nii Tyson de mi ngi fiy bàyyi mi nga xam ne nii kuñ jox avance mu delloo ko ñun dañoo paré pour lek avance mu res jamm su ñun mais gars yi dañuy wax né bo leen déggee tarkindaa di wax euh, xoma euh, ko ci ko né la xoma ci ko ñé euh, ci ko ñé ngi ni parce que man dama jaaka né est ce que jàppoo Tyson 2 ba paré def say sarax ba mu lèr la nga bëkk iri quoi pour défal ko affaire déggoo ma non Tyson 2 ñun ñun duñu sax paré mbeur ñun fa gaay yi toll noonu di paré mbeur ñun tollu ñu fa ndax amuñu xaalisam ñun ben lamb rek dañuy jéxal tak kon soo bëggee waajal keneen ki nga xam ne nii yow waxaguñoo sax yow ay wax da ngay jeexal suñ la joxe keneen foo jëm. dégg moom ba léegi waxi xaalis lay wax quoi day làqatu ne amuñu xaalis yoruñu xaalis ah nii lan lay def di la nax ba ba ba nga xamante dangay dugg ci ñoom fekk ñoom mooy loolu mais nag ki yor xaalis bi banque baa ngi nii ah moom laay moom moom laay moo nekk sama wet nii kii mooy banque bi kii lu mu ma ci wax rek loolu moo am ah, dama koy laaj ñaata million lañ la dénk. salaamaaleykum. wax ba ñu sant yàlla julli séerante bi sant suñu ñaar waajur di bëggee gars yi bokkal mafia bi quoi waaw xaalis bi daal <laughs> turu xaalis rek. <laughs> gars yi dañuy bañ quoi man li ma jaaxal ci gars yi ñoom dañuy bañ quoi ñoom te gis nga boo ñëwee seen combat seetaan ngeen ko El Vision Média gars yi war nañ leen lépp ngeen gis mobilisation bi nga xamante ni gars yi def nañ ko euh, da ngay xam ne ñii dañoo pare quoi dañu organiser wu parce que ñoom bu ñu demee tey ba nga xamante ni am nañ ay trésoriers yoo xam ñoo yor xaalis bi ah ñii ñoom ñooy porte parole ñii ñooy leneen ak leneen kon ñoom organiser nañu seen bopp mais euh, denc ngeen ay millions. nañ waxante dëgg quoi parce que làmb léegi du ay ay du ay deux cent mille trois cent mille moo koy def boo xoolee rek euh, ci côté mystique rek li gars li li li muy bañ moom quoi ah ci côté mystique rek di nga ci def xaalis bu bare bare bare bare bare waxatuma ak euh, mobilisation beeg détail yooyu quoi non mun nañ ne sant yàlla mun nañ ne am nañ xaalis parce sutura rek soo ko amee am nga xaalis quoi te fii wax dëgg fa yàlla am na grand frère yow fu duggee fëgg leen soxla 1000 francs sant yàlla la. léegi combat bi dama bëgg nga ma ñaata million ngeen ci def. non combat bi ne lii lañ nañ ci mais def nañ ci loo xam ne sax xoolal liñ leen fayoon ñoom dañ ko doublé man man maa wax loolu quoi. non wax dëgg fa yàlla suñu nee làmb waaw waaw kase taxul quoi. waa kase rek soo ko yaakaaree sa làmb demal toogi parce que làmb da nga koy def ngir plaisir ngir bëgg-bëgg ñun nag sunu mbër ak ñun nga xam ñooy staff ñun lool ñun loolu la ñu doxee ñun fu mu toll nii xam na ñuy yóot raw Modou Lo ñun loolu la ñuy yónni moo tax làmb ji lu mu jar lu ne rek su jaree sax ñu jaay place sax dugal ko si làmb toog sax di seetaan ñu nañ koy def. parce que bu ko waxee koy gëm parce xasee ba jël avance rek euh, dootul nekk ci jàmm moom mi ngeen gis ni day tëj place am ah euh, nekk ci ci ci ginnaawam daj guddi ak bëccëg di sonn keroog bi ñu xoolee bi muy wàcc ñu gis nga nekk beneen nit quoi ñu gis nga changé complètement euh, jox ñu beneen doomu aadama jox ñu beneen visage boo xam ne visage bi buñ koy liir mbër bi sax bu la xoolee day bëgg a rey boppam ci ci ci visage boobu ngeen doxee keroog quoi. waaw dëgg la parce que lu gars yi wax rek affaire bi du làmb moo ni boole ñun Maama Lamine ñoo jaaxaloon kër jàmm gan ba mu nekk xale ba léegi yàlla boole waa di fii yàlla def ko mu def yàlla def ko rek mu opte làmb te ñun ñooyu ñun ñëpp xaaj bi kenn doxul si làmb ah. moom rek moo ñu tax a jóg di si ray suñu boobu si làmb ñun ñëpp kenn doxul si làmb xaaj bi yëpp waaye su Maama Lamine di bëre dañuy wan ne ñun ñooy bëre du moom parce que yéere bu ñu am si moom la ñaan nañ yàlla mu raw yi raw Balla Gaye gone yi def ko référence ñun loolu la ñuy ñaan ñaanuñu ay comme yam fii de ñun lii defuñu ko pour kasaw kasaw de dañ ko def pour dem ci kaw te beneen combat ñëwee si nga koy gën a xam bu soobee Yàlla Euh, maama ñu gis euh, maama Lamine combat bi bu mu jub see dafa làqatu dafa nëbbatu euh, ngeen làq ko foo xamante ne keroog bi ñu demee ànd ak Karbala ah keroog bëggoon nañ fa def benn temps bi parce que condition yi dafa baax macha allah ci con ci combat bii nii la moo taxoon ngeen denc ko ngeen nëbb ko ba pare teg ko ci condition yu baax quoi ci combat bi lu taxoon loolu. non combat boo gis ak noo koy noo koy bëree rek parce que combat wax dëgg fa yàlla loolu la laajoon dafa laajoon mbër bi am dallu mbër bi lekk lekk bu baax mbër bi di tëdd di nelaw bu baax. parce que combat daa am lu ñu waroon yóbbu te loolu dañuy liñ ci xam dara si kanam combat daa am fu ñu waroon yóbbu moo tax combat dañ see tegoon suñuy fulla ñu dara mbër moo tax ñu làq ko fenn ne ko demal tëdd foofu di dalu di lekk di entraîné dalal sa xel bul xalaat dara lépp loo war a sotti gars yi dañ ko sotti moo tax gars yi nelawuñu lekkuñu naanuñu luñ nar a ndékkee sax dañ koy dégg ngir làmb kon loolu xam nga kon jaral nañu Euh, kon Maama Lamine Gaye mënatoo leen fay sérieusement parler ñi ci ginnaaw ñi ci sa ginnaaw tey euh, amal nga leen njukkal bu rëy njukkal bi nag lenn kese la mooy saa su nekk buñ la ngembee yóbbu la ci arène bi nga defal leen fa moom la ñu bëgg parce que dëgg neexul day metti trop ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nga war a dem bëre ji ah, instant boobu duñu toog duñu lekk duñu naan mais am na koo xamante nii moom la ñuy wax Karbala Karbala borom jaas jaa ngi noonu kooku euh, chaque fois dañ koy gis si làmbam quoi làmb sawaay dañ ko gis xeex sax def na ko rey na boppam def na lu nekk rien que rek moom instant boobu bëggul woon kutoo kut rek damay ragal bu ko drapeau bi jege woon sax mu këpp ko daw dem yoonam quoi mais amaana loolu yëpp amul euh, ñu koy laaj euh, keroog combat bi la moo tax nga mel woon quoi nga def benn changé xam nga jox ñu beneen beneen nit quoi pare woon instant boobu noonu bëggoon nga affaire yi gaaw jeex victoire bi ñëw quoi lu tax. waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum El Vision Médias waaw keroog moom xam nga comme moo ko wax na ko si commencement bi xam nga dañoo yor mbër mu nekk xale ba pare xam nga nekk si yoonu làmb ñu yónni ko yàqamti ko keroog moo tax mu demee noonu te làmb ji ba pare dafa laajoon loolu dafa laajoon li mu def. moom moom moom macha allah quoi ñoom boo leen gisee ay góor yàlla lañ ay nitu kese lañ quoi mais man chaque fois remarque boobu dama koy def bu bu mbër commencé war a bëre rek ñoom dañuy changer quoi dañuy nekk beneen nit quoi ñoom dootoo leen xàmmee sax ak mbër bi quoi mbër bi sax euh, boo xoolee mbër bi xool leen euh, vraiment day mel ne ñoom ñoom ñooy bëree tey ñu gis euh, bi bi bi mbër bi daanee ñu gis leneen ci yow loolu lan la woon quoi lu taxoon nga nga nga firi noonu quoi lan la. boo gisee mu daan ñu firi mooy. date bi mbër bi moo ko jàppal boppam waxoon naa la ko si beneen émission le premier janvier la waxoon Jokal ba le premier décembre fi ñu daje maa la mu am fi mu ko teg Sénégal ñëpp tamit di déglu loolu di xaar loolu suñu borom suturaal ñu mu ñëw confirmer ko comme noonu moo tax après nga gis mbégte bi quoi. mais mais damay dégg euh, xaley Karba xaley Karba yi euh, tey ñu gis euh, ci ci ci préparation combat bi keroog jigéen ñi mag ñi xale yu ndaw ñi kenn lekkul kenn naanul ñëpp taxaw ci ci ci ci ci ci pour pour pour combat bi lan mooy xaley Karba yi lan la loolu association la wala fan club bu mbër bi la wala yow la tamit bëgg nañ mu leer parce que nit ñi bëgg nañu xam xaley Karba yi say xale lañu xale xaley mbër bi lañu wala association wala lan la. waaw xaley Karba Karba moom mbër bi si si la bokk. man ci laa kii ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk xam xale Karba lu benn euh, comme ni ma la ko mën a waxee GIE la am na mbër bi am na woykat bi am na fecckat bi am na ko si kuutaay am na jaaykatu yére bi xam nga lépp si xale Karba Karba la tur la rek boo xamante ne ni xam euh, association la woon comme genre groupe de WhatsApp la woon xam nga dafa dem ba après dafa dépassé groupe WhatsApp. ñu ànd si ñu fekk si waat ci Maama Lamine ndax ñoom ñoo nekkoon fan si club bu Maama Lamine rek ñoom nekkoon dirigeant wu Maama Lamine ba tey a ko kon ñàkkul na millions yi gars yi def ci làmb ji yéen yéen yéen waa GIE bi ñàkkul na yéen a yëkkati millions yooyu jox leen ko quoi est ce yéen a yéen a joxe ñu ne xale karba karba yeeg ñëpp ay ànd di yelwaan ñun instant ci yelwaan lañ toll rek dañuy yelwaan lu ñu am ñu ñëw compter yelwaan bi jox ko sëñ Ndiaye moy serigne bi waaw ñu ñu ñëw jox ko ñu konté ñu xam ñu noonu la ñu doxalee daal. lan ngeen lan ngeen ni paré quoi pour pour li nekk seen kanam parce que li ngeen doon sonu bo boobu ba léegi yàlla defal na leen ci jamm am ngeen euh, ndam mais lan ngeen ni paré nak après. li ñuy paré après moy né mbeur bi dañ koy ñaanal yalla mu am tawfiq ñu wajalat benen combat ci yeneen i façon ci yeneen i gisin si yeneen i taxawaay ndax chaque jour rek. mbër bi suñ ñëw stade rek bëgg nañ indi lu bees tàkk bi passé dañoo taxaw bundu stade bi passé vie Ndiaye dafa mobilisé wu ne ma maxu combat bi nii kenn du jënd billet ma ne ko Ndiaye looy wax ni mu ne ma dajaleel xale yëpp ñu yegg si oto yi ñu egg ba bundu stade ma jëndal ñëpp billet tourné waat te noonu la ko doxalee waaw mais kon loolu noonu dañ siy sant yàlla daal te fii nii amaat na yeneen ak yeneen yeneen yeneen ñoo xam ne nii dañuy mobilisé wu taxaw risqué wu ne man maay def lii loolu dama koy def du si xaaraat ma paate du si xaar ma dem xam nga loolu noonu dafa neex si ànd ko waa waaw. mbër bi kontaan ngeen ci moom wala kontaanoo lañ ci moom. mbër bi ñun mënaguñ kontaan si moom ndax xam nga lu waral mënaguñ kontaan ci moom faaw roi des arènes bi mu ñëw jàmm gën si kàmbaam ñun loolu la ñuy rêve loolu rek la mbër bi mën a def suñu xol sedd. mais amut len limu def ni ñun pour ñun ñi ci bapat lañ ko la ah, barki suñu bamba victoire bu reuy bu ñu dégg barki dé mu naan victoire bu reuy ngeen am victoire bu reuy victoire bu reuy bo pour man ci bapat lañ nekk la man kérok bamay dem esat sax man dama japp na ma ngi dem bapat man lool la japp ko ma ngi dem bapat japp ne ma ngi dem arène ma ngi dem bapat kañ lay gëm ne deug deug deug ma ngi dem arène mbeur yi tay gi ni wara la roi boobu laay gëm ne tey jii ne dëgg-dëgg maa ngi dem arène te boobu nag dinañ ci taxaw nu ñu mën a taxawee defaat ci yeneen façon ndax làmb ji fu mu nii ñun booy bi daf ñoo jaral daf ñoo jaral pour mu nekk champion saa yi dañoo xar suñu tànk tuur pour booy bi nekk champion te incha allah dinañ ko dégg te day doon champion ci kattanu yàlla. Maama Lamine gars yi yóbbante nañ quoi nee nañ ba léegi nii bëggaguñ ci yow tant que euh, nekkoo li nga xamante moom mooy roi des arènes wala bëri woo ak roi bi ñu xam ne euh, ñi ngi dem stade pour seetaan li nga xam mooy làmb jàpp nañ ne ba léegi yaa ngi def mbapat ñoom loolu lañ bëgg loolu lañ la wax te loolu lañ la sas te xam nañ ne dégg nañ ko dégg nga ko te boo jàppoon benn di nga jàpp fukk ah instant bi yaakaar naa ne euh, doo toog ci kër gi da ngay génn ci kër gi dem ci naaj bi quoi hmm? lan mooy seen secret seen mobilisation parce que dañuy gis boo leen di bëri ful bi ah ni muy génnee noonu fu ne lay génnee quoi parce que du jàmm gën bu kese mais dañuy gis nit ñi fu ne la ñuy ah, ñu gis gars yi keroog seen mbégte yi sareet yi oto yi ah, ku nekk di wane sa mbégte euh, ni nga ko yëgee rek nga wane yoo ko noonu lan mooy secret bi quoi réellement lan la. non loolu moom secret bi leen la rek mbër bi moo ñëw wane yar wane teggin ah ku mu jox la cër dirigeant yi tamit noonu képp ku ne ku fu mu yéen day jox ñëpp cër di nga ndaw soo nekkee si koñ jox ñëpp soo doon def defu caaxaan sax ñu ñi dañ lay fekk cër rek mbóot bi yëpp cër am taalibe loolu dong la du leneen waaw. loolu mooy seen secret quoi taalibe bi yar bi. taalibe yar paa boo romb jox ko cëru papa grand frère xale sax ba si ndaw soo ko rombee jox ko cëru cëru grand man ñëpp cëru grand nga leen di jox boobaa loo def nga xam ni xaalis du dara de xaalis du dara nit mooy lépp nit ñi moom soo leen amee am nga lépp ñun looloo suñu secret loolu doogul yéen ko yéen ko déggandoo secret bi lenn rek la Mama Lamine mooy fi nga jàpp bu ko bàyyi te àdduna bu nekk nit ku nekk nii nga war a taxawee mooy jàppal ñëpp ñëpp jàpp la tey li tax euh, gars yi nekk sa ginnaaw yow mbër mi yëpp lenn rek la mooy euh, ni nga mel li nga tàmbalee ba fi nga toll tey mooy am yar doon bay Faal yamale ñëpp loolu moo tax li nga am tey nga am ko euh, lenn laa bëgg nga wax ma ko quoi hmm? mooy mbër bi tey boo amoon loo doon wax ci moom pour mu dindi ko lan nga koy wax quoi tey wala mu yokk ko mu dindi wala mu yokk mbeur mi suma amé amee may wax ci mom pour mu dindi ko xamna naa du yomb quoi ndax dafa dëgër moy euh mu euh, wañi whatsapp té connexion whatsapp ni nii la maa ngi leen di bëgg whatsapp waaw loolu rek mooy ciisam bu ñuy xuloo ci bëri lool dafa bëri dafa atir dafa nek ci whatsapp ba nga xamante sax bu bu ubé téléphone sax day tan vocal yi muy ku dem ba nga xamante da ngay tan vocal yo xamante mom moom nga war a wuy kon whatsapp bi sonal la la su ma ko doon wàññi loolu nag côté boobu rek laa koy wàññi mais li des ci côté mbër maam lañ waxoon naa ci benn émission defe naa jaxaay bi ñu ko fekkee hélas na côté Sénégal bàyyiwaat xel bu baax maa ngi koy waxaat barki Seydina Mohamed ndax ñun xam nañ ko xam nañ li si ne ndax dañ naan nit ki balaa ngaa wax rek da xam ba pare mais dañ koo xam maam lañ li nekk si moom bu yeewoo waxuma la Sénégal mais africain si boppam day dina bëgg dina sigil Afrique partout Afrique lu mu lay sigil waaw nag gars yi baax xel bu baax a baax dégg nga li ñu wax quoi gars yi euh, leen rek moo leen métti mooy wax whatsapp bi star nga ah mbër gars yi nga wàññi ko tuuti terewuñ na ko quoi mais nga wàññil ñu ko tuuti rek euh, gën a nëbbaat sa bopp gën a denc sa bopp quoi euh, parce que technologie la mbir la boo xamante nii communication lay lay jàllale mais tamit ñoom dañ bëgg nga wàññil ñu ko tuuti man sax bëgg naa nga wàññi ko nga tey li ma bëgg nga waxal ma ko ci ci ci mbër quoi ah, lan nga xamante ni war nga ko wax pour mu moytu ko en tant que yéen ñi nga xam dafa nekk ci mystique parce que mbër dafa war a euh, nëbb boppam dafa war a ñag boppam dafa war a denc boppam euh, ci lan la xamante ni war na ko moytu euh, parce que nag chaque jour mbër tant yaa ngi ci yoon di dem ngir bëgg a nekk roi des arènes fiir day bëri. te fiir boo ko bëggee moytu ñi sa ginnaaw ñoo la koy wax ndax ñoo ñoo lay bàyyiloo xel te yow euh, yaakaar naa ne balaa moo gis fiir yow di nga njëkk yaa njëkk a gis fiir bi ndax yow mi nga xamante ne chaque jour yaa ngi ci ginnaaw euh, yow yaa koy gis tey lan nga koy moytuloo lan moom mbër bi amee lu ma koy moytuloo confiance gu métti gu mu gaaw a jox doomu aadama rek mbër bi tey jii nii yow mii suñ demoon nii su la xamee tey bu subaa mun ngeen am dem toog bari moom garaawul moom moo gaaw am confiance te loolu sax mooy doomu aadama mais lool it lu jar a sóor si la bokk daal lool noonu lu mu jar a sóor si la bokk waaw gën a duggaat si biir nit ñi gën a waxtaanalaat nit ñi gën leen nuyu gën a jàppaat ndax ñun ay Baay Faal lañ ay taalibe lañ ñun taalibe rek moo ñor leneen lu dul taalibe it soxaaluñ daal doomu aadama it soo ñuy woo si taalibe nga ñuy woo ñun xëy sa xéwal soo koy jël duñ ko jox te mbër bi tax wala ñun ñu tax ak ak taalibe rek ngañ ko mën a joxe dañ ko joxee neneen nu bokkul ak taalibe wala dañ la koy delloo ñun ci loolu lañuy ñuy dox ndax moom lañ xam waaw su taalibe rek la ñuy dox waaw. Euh, kon mbër yaa ko déggandoo gars yi neneen tamit nga gën a fàgguwaat gën a ñagaat sa bopp gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax ci li nga nekk ndax ndaw nga di dem te ñu bëri dañ lay bàyyi xel te adversaire yi dañoo bari te chaque jour ñu ngi teg ay fiir ngir fexe nuñ la jàppee kon euh, dafay baax nga bàyyiwaale xel lool lan ngay tàggatoo. waaw man lu tàggatoo yàlla nañu yàlla fal cat rek musal seytaane te combat lu si ñu xamul dañoo falaat bureau ndax combat bi jarab bu ñu jarul fal bureau ku si nekk ñu jox la sa poste te gis nañ gaa yëpp gaa yi sa bëri na ñun ñi ñoo si gën a ndaw mu ay ñoom asan Kama ay ñoom Aliou ay prési gaa yëpp gaa yi suñ ñëwoon duñ xaj parce que ku si nekk ak gëm-gëm waa te ku su nekk responsable nga quoi man daal lu may soñu mbër mooy mu xam ne jàmm nga si Kamba mooy basam fii la am amul fenn fudul fii na waaye na gën a téye jàmm gën Sicap Mbao gën a respecté ñëpp gën xam ni moom mooy sunu champion tey suba am la ñun moom la ñuy tiitaroo ñun moom lañ gëm gëmuñu keneen man boog bii man mbër laay gëm moom laa tiit du ma seetaan beneen làmb musuma dem stade su la waa doo ma gëm stade mosuma fa def comme ma maama Lamine moom mooy yóbbu stade xam nga kon gëm-gëm na gëm ni mooy sunu Modou Lo mooy sunu Balla Gaye mooy sunu Yékini su ko gëmee rek jeex na tedd waaye te def si xelam moom roi des arènes la war a jëli bu mu def si xelam ne mbëru kasaw kasaw la jë nga nit loo war a doon yaa koy def si xel ba pare gëm ni man lii dama ko war a abi yàlla loo loo sabab lu mu may la ko lu mu yore pour jaami la yàlla nañ yàlla fal cat waa El Vision tamit yàlla na yàlla may tele bu mag bu ñëpp di teg parce que ñoom mos naa ko si benn émission jàmm ngeen Sicap Mbao lu fu nit taxawal la ñoom ñoo ngi lancé xale yi képp ku làqatu sax nekk sa benn ruq sax yéenay jéem pour mu lancé ko neen gëm ngeen fi ngeen dëkk. kon yéen fi ngeen dëkk damay ñaan ngeen am fi lu ëpp seen jort yàlla dafa leen sutura may leen gudd fan waaw man loolu laa lay ñaanal la amin waaye ñu bokk ñun ñëpp ah euh, parce que ñun ay ndaw lañ di wut comme ni mu ko waxee gars yi bari nañ ñi ci ginnaaw làmb ji boo ko natt fu nekk weesu na ko mais tey ñii tey ñoom ñoo taxaw pour fésal tuuti rek li ci ginnaaw mbër mi ba beneen yoon tey lan lan lan ngay tàggatoo tal waaw li may tàggatoo mooy di santaat ñëpp gaa yëpp ku leen juum sant waa gerte gi sant waa Fora sant waa Fass Mbaw xam nga sant gaa yëpp ndax ñoom ñoo waral lépp sotti daal waaw santaat gaa yëpp di ñaan yàlla yi télé bi it mu doon tele bu mag ci dëkk bi ñëpp di ko dégg ndax ñun yow El ñun dañ lay tiitaroo ndax ñun eh, maa ngi soog a maa ngi remarqué yow yaay première nit bu ñu mës a eh, kii boobu sax open press amul répété lañ doon wax répété trois jours maama Lamine day répété boobu daaw ñu def open press waaye première média bu ñu toppee kër mbër ba si ñu répété baax kon duñ def lu dul di la sant di la gërëm di wane ne it ne ñun it fàtte jëf ba ilaa abat ñun ak yow tey nag neex na ko waa média yëpp a ñëw site yëpp a ñëw maama maama maama maama maama mais duñ fàtte démb affaire bi El Hadj yow la waaw sa kaw sa kanam allah te euh, kon daan nañ trop euh, di wax euh, jëwriñ nga sànn ñaari baat ci tàggatoo bi tey parce que li ñu amoon ci temps yëpp jeex na di la wax yan baat ngay tàggatoo quoi. waaw El Hadj nga may ma tuuti rek ma am ñu ma sant ñoo xam ne jàppoon si combat bi te chaque jour mbër bi mooy mën a toog di leen sant léeg xel bi fatu mais ñun ñuy dox si ñenn ñi am xamante ne jàpp nañ mbër bi yëg na am na ñoo xam jàpp nañ ci te mbër bi yëgul. kon di sant ñooñu noonu ñoo xam ne ñun ñoo dox suñu tànk ba seen kër ku si mel ne laay béy suñu grand la suñu champion la xam nga taxawu bii nii si moom lañ ko njëkkee di sant laay pota moo ñu jàpp na si bu baax asuyero suñu yaay la suñu mag la jàpp na si di sant xawaa suñu benn jigéen boo xamante ne moom Pikine la nekk parce que Seydina Mouhamed yaayu maama la dafa bëgg maama la moom gétt ga la doon toog si biir Baye Fall lu ne dégg na ko nag yàlla dimbali na ko tey mu sëy Pikine foofu ko ñu ama ñu koy bëggee bu baax a baax moom it jàppale si sant yow moom comme liñ la wax yow si nga bokk yow yaa ngi gétt gi man chaque jour dama lay lim si membre gétt gi wax naa la ko xam sant tamit Ndiaye moom mi ñëw place am fii defee ko si vieux Assane mooy dirigeant maama la ni ni Mor Faase xam nga Aliou Kuy Jazz euh, Lamp ak euh, Dieye bu yaakaar moom it champion la si jàpp bu baax a baax ñoom bokkaande boo yëpp di sant ñëpp rek ak suñ benn gaan boo xamante ne mooy suñu papa ñun ñëpp Baba Ngom mi ngi euh, fële nu mu tuddati sax Casamance moom it ñu koy bigab bu baax a baax di sant ñëpp rek xam nga fan su maama la ñëpp di leen bëgg bëgg xale karba karba tamit siyaar na leen baax Eh, jaajëf tey comme ni ngeen ko gisee euh, li moo nekkoon euh, li ci ginnaaw mbër mi euh, tey gis ngeen tey amaana tey gars yi buñ leen indi woon fii duñ ko xaj comme ni ñu ko waxee sànq mais tey ñii ñoo yaatal as lëf ci mbir mi nga xamante ne nii tey moo nekk ci ginnaaw mbër bi di wax gars yi chaque fois ni lay demee ci biir El Vision Média gars yi abonnez-vous quoi affaire bi fii la képp koo xamante ne nii tey champion nga ca ginnaaw war nañ gars yi xool la moo ne ci ginnaaw champion boobu quoi i wax gars yi jaa ngeen jëf abonnez